bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu jàngal leen fii communiqué bi nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci daayu Rawdu Rayaahin ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ginnaaw nuyoo bi mu wax ne bokk na ci yi gën a am solo ci jubluy lislaam mooy aar njaboot yi ak askan wi ci lépp loo xam ne ak mbon la wala yàq ay jikko looloo waral suñu boroom daganal wàllu sëy muy dencante diggante góor ak jigéen utal ko ay sart ak yoon yoo xam ne ci lay jaar yu ñëpp xam ci loolu itam mu araamal njaaro ak jëfi góor jigéen boole ko ci jëf yi gën a ñaaw yi nga xam ne lenn gënu ko bon ci ëllëgu askan wi waaye ci ñaawteef yooyu jëfi ngóor jigéen moo gën a ñaaw lool wàllu njaalo alxuraan wax na ci ci ay barab yu takku di wax nit ñi nga xam ne ci ñoom la suñu boroom yabaloon yont yàlla lóot alkande gam leen alagoon jëf ju ñaaw jooju moo doon sabab si yàlla suñu boroom wax ci alxuraanul karim ci saaru Shuara di ñaawlu jëf jooju nan leen ndax da di booloo ak i góor wacc fi jigéen ñi nga xam ne ñooy seeni soxna yu leen lew te yàlla suñu boroom tànnal leen ko yéen de ay moykat yu bon ngeen ci laay téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn boo demee ci suuratul Ahraaf itam jëfi ngóor jigéen suñu boroom niroole na ko ak jëf ji gën a ñaaw di jëf joo xamante ni la ko jiitu amul ñenn ñoo xamante ni jëf nañ ko muy wax ak ba tey nit ñi nga xam ne ci ñoom la suñu boroom yebaloon yont yàlla lóot ne leen ndax da di jëf jëf ju ñaaw ji nga xam ne kenn ku leen mësa jiitu ci xeet yi defoon nañ ko di leen yedd di lu jëf jooju ne leen yéen de yéen a ngi faj seeni aajo seen bànneex ci ay góor wàcc fi jigéen ñi nga xamante ni suñu borom tànnal na leen ko yéen dey jëfkatu ñu jéggi dayoo génn saaru laxaraaf ay juróom-ñett fukk ak benn ci loolu itam alxuraan moo leeral mbugal mu tar mi nga xam ne suñu boroom moom la wàccee ci kaw nit ñi nga xam ne ci ñoom la suñu boroom yabaloon yonti yàlla lóot jublu ci jàjj leen jàjjaale ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci seen ginnaaw ci alxuraan wax na ci ne keroog bi nga xamante ni ci suñu ndigal lañu taw ci kaw ñooñ yonti yàlla luut taw boo xam ne ay doj la ànd ak mbugal mu tar ba ñu faatu ñoom ñëpp alxuraan ci boppam itam mooy leeral na suñu boroom jëflanteek ñoom mbugal ma bu ñu xoolee ci hadis jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na ci hadis yu bari yu rot jëm ci jëf ju ñaaw jooju ak ni ko suñu borom araamalee ak musiba mi nga xamante ni moo cay fekk ña koy jëf am na ci hadis boo xamante ni jaabir moo ko solo radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ma gën a ragal ci sama xeet wi mooy jëfi nit ñi nga xam ne ci ñoom la suñu boroom yabaloon yonti yàlla lóot ibnu abbas radiallahu anhu moom tam soloon na addis bi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ni yàlla suñu boroom rëbb na kiy jëf jëfi ñooñ yont yàlla lóot wax ko addis bi ba muy ñetti yoon ay nettali yu wér nag tukkee ci sahaaba yi nga xamante ni ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa xam nañ ne ñoom ñëpp maase woon nañu ci ay daan yu tar yu diis yoo xam ne dañ koy teg ci kaw ñi daan jëf-jëf jooju mboolem fuqaha yëpp itam di attekatu lislaam yi maase nañu dëppoo ci boole ko ci kabaayir yi muy gën gaa gën a màgg bakkaar yi cheikh ahmadou bamba xaadim rasul ci téeréem bi mu tuddee mu nawiru sudóor leeral na ci lu nu mel bi muy lim kabaayir yi wax ne njaalo ak jëfi ngóor jigéen bàkkaar la yoo xamante ni dañ ko jagleel pëyu doomu aadama képp koo xamante ni jëng nga jëm ci di nga dellu waxaat itam ci téeréem bi nga xamante ni mooy mu layinu sudóor wax ne njaalo ak jëfi ngóor jigéen pëy lañ ko jegleel nang leen wattu soo ko defee suñu boroom dana la jubal ci siraatal mustaqim bu ñu sukkandikoo nag ci yi nga xam ne moo jàll ñi ngi ñaawlu ba fu mu mën a yem bépp jëf joo xam ne dafa jëm ci jéem a dooleel jëf ju ñaaw jooju nga xamante ni askan wépp lay lorandoo ci lu amul ak sette ñi ngi digal jullit ñi di leen laabire ak mboolem ñi nga xamante ni am nañu xel te yeewu ñu wattandiku jëf ju ñaaw jooju di bàkkaar bu mag te itam ñu ñaawlu ko reeteet ko kem lu ñu mën ngir dafa bokk ci bàkkaar yi nga xamante ni su yaatoo yàlla suñu boroom da ciy mbugal askan wépp ñi ngi dooleel nag tey ñaax di soññ ci lépp loo xamante ni yoon la wu ñu jël woy tax ñu mën a xeex ak jëf ju ñaaw jooju ak lépp lu jëm ci di ko jàppal tànk wala di ko dooleel ñu ngi soññ ñëpp kenn ku ci ne kem la tollook kàttanam mu gën a góor góorgóorlu ci jéem a yaatal lu baax ak di ko digle ak lépp loo xam ne jikko ju rafet la ci askan wi di liggéey itam ci luy tax jikko yi gën a baax rawatina ci ñi nga xam ne ay ndaw lañu ci lépp nag lu ko mën a defee ci yar leen ci yaatal ko ci wàllu yoon ak ci wàllu jëflante ba ñu tege ci yoon woowu ci mujj ñi ngi ñaan suñu boroom mi nga xamante ni mooy aji tedd ji mu yeesal yërmandeem ak xéewalam ci bindeef yépp tawféexiluñu ak njub ak wér yaram aar réewi jullit yépp ak àddina bépp ci lépp loo xamante ni jëf ju ñaaw la ci lu fés wala lu nëbbu rahmaanu hëbli jamihil xalqi rahmata man yugni hani charri man quraanuhum xaraa xut ummatal mustapha han kulli mafsadatin wal tarhamil yaa man jaddahum badaa yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamihal wara yaa haadin radaa noonu ko sëriñ Touba ñaanee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa muy ci Touba ñaari fan ci weeru jumaa de saani atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ati gàddaay gi dëppoo juróomi fan ci weeru janvier 2022 daayiratu Rawdu Rayaahin def ko ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifi général des Mourides